waaye loolu waxatuñ ko léegi moom tux moom ku ko moom daal xaraamal nañ ko moom ndax lañ lañ la cay pénalité yañ la cay teg mooy wane ne xaraamal nañ ko bu dee Espagne boo tuxee cent cinquante euro ngay fay benn mégo cigarette nga tux ko ci public cent cinquante euro ngay fay cent mille francs ñun nga gis ku ñëw ba ci say bakkan ne ko ci paf boo waxee mu ne merde fii buur mbedd buur la loolu alaaji Malick ba mu ko ba mu njëkk a wax Seydul Haaji Malick dégg naa réew mi yëpp jóg ne Maodo dafay xaramal pon benn naaru gànnaar déggu ko ñoo na ko dama dégg ne danga nga ne pon dafa xaraam waaw ah, loolu laa jàng naar bi sox sox sox ba gën gi fees mu muqi ne pëf ne Maodo wax ma fu mu xaram mu ne ko xaw ma fu mu xaram de waaye yow bos bii xaraam na ndax yàlla bëggul kuy lor nit te yaa may lor jam na ko jam na ko wax naa leen ko am na fi kilifa gu mag boo xam ne daf daan jëfandikoo pon dem ca Maba Jaxu Ba ak Maamu Ndëri ne ko dégg naa danga wax ne pon dafa xaraam gisul nag boobu jotal ndax Maamu Ndëri balaa nga daan yegg si ci moom balaa nga yegg si ci Maba Maamu Ndëri ngay njëkk jot Maamu Ndëri moo yoroon daara ji Maba moo ne woon ci wàllu kurus gi mu ñëw ak gënnam ak pënam sol ko ba mu fees ne ko maba laa soxla mu ne ko loo koy doyee mu ne ko kii laa dégg mu ne dafa xaraam moo dem bëgg mu wax ma fu mu xaraamee maamu ndëri dem ci biir ne maba am nga gan de gan pànk bari xam damay bañ a tudd turam lool mu ngi ci daara ji toog di la xaar soxna gën na gën fees yor yor taalukaay ga nee na daf lay laaj fu mu xaraam mu ne ko ne ko maa ngi ñëw wax ko fu mu xaraam maba it sox fetelam maa la ko wax da ko doon rey de ma ba sox fetalam génn nuyu ko mu fay ko mu ne ko diw mu ne mu ne ko bismillah masala bi ngay laaj mu yëkkati gën gi yëkkati almet bi ne ko kii laay laaj fan la xaraam ba ngay wër ci àddina bi di wax ne pon dafa xaram ma ba yëkkati fetel gi diir ko ko ne ko kii moo lay wax fu mu xaraamee bu tàkkee mu ne ko bu kooku di tàkk rek kii tàkk xam-xam piir mu ne ko bu ko di tàkk rek kii tàkk kii moo lay wax fu mu xaraamee xam nga nu def yekk gënn gi ci suuf dóor ko ba mu kii jël almet ga dugal ci poosam ne ko kooku lu mu xaraamal ñu ba ko <laughs> jàngale la mu ne ko kooku lu mu xaraamal ñu ba ko mu ne ko toogal ñu waxtaan ñu toog mu ne ko xam nga yow borom xam-xam nga da nga pànk rek di wër nit ñi di wax di waaye xam nga fi poon xaraame man nag du ma fi nekk di weranteeg yow ndax aw ma jot te maamu ndëri mi mayuma ko mu weranteeg kenn ndax talu ko ndax daara ji ma wan la li gën a gaaw rek rey la du dara ci man te teg ko ci chariatul islamiya nag ndax yaa jógee sa kër pour diingat mu waxtaan ak moom ci foofa la bàyyee poon mu warlul maba ne ko bés ni tey banaa poon maba ci la xaritoog moom dem na lu ëpp ñaar fukki at mu door a faatu moom kilifa googu te billaahi bu ma la tuddaloon turam tey ni mu siiwee ñépp ko xam ëpp na vingt ans après la door a génn àddina Chérif Yunus bii bu bangeer moo ko wax Cerno Yaxya li Cerno Yaxya li moo ma ko nettali pour mu leer boobu ñu xam ne du sama waxu bopp Chérif Yunus moo ko wax Cerno Yaxya li ndax xaritam ma woon Cerno Yaxya li moo ma ko nettali mu ngi ma ko nettali 1993 Cerno Yaxya mu ne Chérif Yunus ne ko diw dey bam faatoo ndikete am na ay weer duggut àjjana Cerno ne ma ne ko lu tax mu ne ñun wali yi yëpp la ko yàlla umpale woon gis nga kon yàlla lu ko neex mu def mu ne bés lañ dem ci diiwaan ba rek benn wali yi soumettre ko xam nga ni assemblée nationale di dugalee dossier ni ñu koy waxeeti eh, projet de loi ak benn waaw ak yeneen proposition wali yi buñ dajee ci diwaanu lawliyaa yi dañ koy def dugal ay proposition pour tiinu wala dugal ay proposition pour ñaan ko yàlla mu ne am wali bu ko dugal ne diw de bi mu génne àddina ba tey dugut àjjana xamuñ fuñ fu mu nekk ñu càmbar càmbar xamuñ fuñ fu nekk nekk Cerno Yaxya li nee na boobu Chérif Yunus bu masaan julli tàkkusaan julli gee ba noppi astafurlah bu julliwaan tàkkusaan ba pare nee na day génn ci mbaar mi ñu lalal ko jali bi di kooraa waaw na ko ci nit ñi déggee ba dem di leen di kooraalu senegal loo wax am ko dem di ko jéem a toppandoo maqaamaam la ku ca yeggul bu ko def maqaama shérif Yunus la yegg na ca am na wilaaya gi ndax Cerno Yaxya li nee na maam Maska moo ko ne shérif Yunus mu ne amu ne ko waliyu nga shérif nga abbas yi nga ñetti daraja yëpp boole nga ko nee maam maska moo ko wax shérif yunus te shérif yunus maam maska moo ko yebal bangeer mu dem toog fa mu ne ko boo fa toogee lépp dana la fa fekk ci làmbe ñu maam maska la jóge Cerno Yaxya li moom a ko nettali nee na shérif yunus ne ko wali boobu nag moom lañ doon ti mu ne shérif yunus toog tàkkusaan génnul timis génnul gee génnul mu ne ñëpp jaaxle jali bi jaaxle mu ne ba gée gi sori lool mu door a génn ne na fekk ñëpp a ngi toog di ko xaar mu ne géwél bi ne ko moom lañ doon bañ léegi waaye danañ ko wax ndax ñoom ñoomit ñoo ko jox seen bopp ci waxin rek mu ne géwél bi ne ko ay shérifu tey ñëpp jaaxle nañ lu xew yaa ngi toog ci biir rek génnuloo lu xew mu ko wallahi benn waliyu min awliya ilahi taala ba mu dee ba tey ndeke moom lañ doon tiinu ca diwaanu lawliyaa yi alhamdulilah yàlla baal na ko Cerno Yaxya wax ma turu waliyu boobu ñu doon tiinu xam naa ko ni ma la xamee yow Cheikh Simbel ay sëtam sax samay xarit lañ nee na mu wax ko ko nee na mu ne ko lum defoon ba yàlla téye ko mu ne ko póon la daan jëfandikoo ba pare bokk ci tarixa bi moo tax donte bàyyi woon na ko mais teewul yàlla jàpp ko ca ndax lim nekkoon tiijaan ba noppi di tux te bàyyi na ko vingt ans après door a ngeen xam ne cigarette garaw na póon c'est très dangereux xam nga lu tax boo tuxee xamoo ñaata nit nga lor moo tax Cheikh na Cheikh Saad bu bind ci téereem ne kiy naan sàngara ak kiy tux xaaji masil la bismillah mu ne kiy naan sàngara ak kiy tux may ko mu ñëw nii bu ñu dajee mu ne moom tànn na kiy naan sàngara bu màndiwul mu jiite ko julli wëlis kiy tux jërëjëf xaaj kan kan kan bismillah tafadal kan kañ ah ñu ngi lay ziyaare bu baax waaw ah, toogal na le sëñ toogal na le tabaarakallah yàlla def Chérif Yunus moo nettali loolu Cerno Yaxya li Cerno Yaxya li nettali ma ko kon pône c' est très gis nga boo boo xëccee falaam sànni ñaata nit nga lor ñu la wër léeg-léeg nga sànnee ko fii mu xeeñ boroom kër gële xesew sax laay wax xunnu ñaata jinne yu bëggul xet gu naqari nga lor ñaata malaayika yi la wër yu bëggul xet gu naqari nga lor ndem yonent bi dafa ne sallallahu alayhi wasallam ku lekk laaj bul ñëw ci sama jàkka cigarette nag tuxkat bu la ne yow te gàllax ndeku wut socc wut laalul seen yooyu ñuy laal yàlla bu mu tux bem am ay waxtu te billaahi kuy tuxatu di nga bàyyi tux ñiy tux ñëpp dañ leen waroon a wan ñi tux be faatu soo yéexee càngaay yëpp ay yàqu buñ ko yéexee rob càngaay yëpp ay yàqu day kuule amul huitaine yoo mën a ci nopp yi fu turu nekk rek nicotine bi daf fay jaar di génn comme robinet billaahi wal kitaab bi am na ci koo xam ne maa ngi koy fàttaliku duma ko fàtte mukk dañ ko yóbbu di ko rob keroog sëñ Abdou Alamine rahmatullah alayhi wa moo ko jullee waaye billaahi biñ koy jullee ñëpp a yàkkamti ndax weñ yaa ngi biiw kees gi comme ay yëmb ñëpp ruus billaahi wal kitaab bi ñëpp kilifa xam nga de ko sëñ Abdou di jullee kilifa nga kilifa la xam naa ko nii ma leen xame mais buñ yéexoon tuuti rek ba am mu jigi xet gi da gis kuy ku taf nii kii am sax mu commentaire sax bariwutoon maanaam seede seede néew bi bala benn nit dafa seede te day daf ko patam patame ndax boobu weñ yaa ngi naan wii wii wii ma ne lii c'est très bien waroon nañ ko war ñiy tuxu ñëpp ndax ñu ba cigarette ña koy sang moom maara day taali lu ne danañ ko daj pour sangu ko pour affaire bi arrêté du mën a arrêté da ngay mujj rek jël ay witeen saañ bàyyi noonu càngaay li booy yéex yëpp yëpp kuule te day ñuul kukk comme goudron dama koy wax pour ñuy tux bàyyi tux tux c'est mauvais tux mooy yées moo tax sëriñ kër si nee na moo ko nettali sëñ Abdou Lamine nettali na ma ko mu ne bés lañ koy werante fii min yax moom sa turandoo Serigne Cheikh Tidiane si wax na ci lu yaa lu yaatoo yaatoo mu ne sëñ Babacar si ne képp ku jël loxoom dugal ci biir gas pax dugal ci biir ne billahi cigarette xaraamut mu ne su sa loxo génnaatee man Babacar loo bëgg ma jox la kenn essayé wut xam nga dégg ngeen li ma wax la déet mu ne ku gas sa loxo ba lii dugg nga dugal ci biir pax suul ne billaahi bu dee li Babacar di wax dëgg la ne cigarette dafa xaram bu sama loxo génn mu ne ku ko ci def bu sa loxo génnee loo bëgg ma jox la mu ne beneen bi utal eh, janax nga rey ko saxal ko galami cigarette suul ko jubluñ ko xibla boo toogee ñetti waxtu boo ko sullee ñu jubluñ ko sow sëñ bi nañ ba cigarette laa yusminu wala yuxni min juin du faj xiif du faj mar mbon rekk la du dara laa yusminu wala yuxni min juin waaw day dox ci cigarette fajul xiif fajul mar wax nañ wax rek su cigarette ndax ku xiif dana faj xiif ku mar dana faj sa mar laa yusmin wala yuxni min juin moo tax wujuhun yawma izin ku ko bàyyi wujuhun yawma izin naimatun li sha'yiha radiya hmm? ku ko ciy tux nag yu'raful mujrimuuna bi siimaahum tuxkat piir boo ko gisee xam ko ci tuñ ya ci laal kukk ah bëñ yi la yàq xëtër ba nag moom médecin ya koy gis maara day taali buñ ci sori xaj ma si lakan moo yegg si nii ñu koy nuyu ñu tëj passage bi jox ko mu mottalil ñu ñaan